jóg tey di ko war def benn tournée ànd ak Faly Niang bi nga xam communicateur communicateur la communicateur traditionnel dañu jóg pour euh, si ndigalu Moustapha Diop maire de la commune des HLM ànd ak bureau municipal am conseil municipal bi ak tout le personnel de la commune ak toutes les personnes ressources yi nga ne ñoo nekk ci biir commune HLM mu lëkkaloo manko pour ñu ne dañuy def des encombrements parce que la population a demandé savoir pour nous faire des encombrements des encombrements moi, faire carte de vie environnement donc auto yi nekk ci si dégarnir euh, cité HLM vous tax pour mu ñu communiquer la population pour nous ne oh, yëgu ñoo ñu de parce que mën nga ñëw commencé ñu ne yëguñu commencé joxe sommation depuis le démb de joxe nañ faire des ñu Euh, tey moo numéro ñu jël leen oto bi jël euh, Faligna ànd ak moom def communicateur yoo xamante ne ñu communiquer ak population bi communiquer ak occupants yi occupants yi mooy mécanicien yoo xam ne ñoo occupé mbedd mi atelier yoo xam ne ñoo occupé mbedd yi kees yoo xamante ne borom ñoo occupé mbedd mi loolu tax ñu ne ñu jóg leen dugg ci quartier bi wër ak quartier bi tourner informer pour kenn bañ ne dañ ko bett ñu préparé jël seen matukaay yi que ne euh, désencombrement bi c'est dans les plus c'est dans le plus hauts délai mon na que tey si guddi comme mon na que suba comme mon na dans une semaine comme mon na dans un mois mais mon wax kenn date l'essentiel ne connaît connaît connaît connaît ku ne loo xam ne yaa ngi ko bàyyi si mbedd mi nga jël say matukaay préparé wu na jël ko ko fi parce que bu ñu ñëwee bu ñu def ko fi jël fourrière municipale lañ ko jëlee fourrière bi jam ñaajo la ne te jam ñaajo bi ko fi yóbboo coono rek moo leen dikkal donc oto boo am ba nekkee ci atelier atelier dafa war a nekk mbenn magasin magasin boo xamante ne boo mënul liggéey oto bu ko teg ci mbedd mi boo ko tegee ci mbedd mi nag day dégrader situation bi dégrader cadre de vie bi dégrader environnement bi te loolu commune bi bëgg ko population bi bëgg ko te ci tànk yooyu la Moussa nekk pour defar saafaral euh, bëgg-bëggu bi. ndax non si voie publique bi voie publique du pour jaayukaay Euh, ku jóg ne man damay jaay damay daan sama doole daan sa doole si kaw yoon ñëppooy daan ñëpp sa ñoo war a daan seen doole mais daan doole dañ ko daan si kaw dëgg si kaw logique si kaw yoon mais taxaw si kaw foo xamante ne fooy population war a jaar nga ne dañ fay jaay population bi di jaar si kaw tali bi oto yi di leen mbëkk kooku teguwul si yoon nañoo organiser wu defaru bu ñu lu ñu bëgg nañ ñëw à la mairie toog ak maire toog ak responsable technique yi nga xam ne ñoo yor yooyu ñu waxtaan tënk xool solution boo xam ne moom la ñuy trouver ensemble parce que conseil de quartier loolu lay jëriñ moo ñu né nag comme quartier yi président euh, def sen assemblée générale population quartier bu né defar sen assemblée générale trouver solution bo xamantene conseil quartier c'est fay c'est pour le développement du quartier conseil quartier c'est pour le développement du quartier ay perspectives d'avenir ay projet d'avenir yo xamantene pour le développement du quartier lolo tax ñu naan conseil quartier conseil quartier nañu jox population yi jox si biir quartier yi waxtaan seen biir trouver solution trouver un terrain d'entente pour fal ñi nga xamante ne ñoo wara nek ci bopp conseil de quartier conseil de quartier du n'importe comment projet quartier mooy dimbali maire yi ci ay yenn yu bëri yoo xamante ne maire waroon na ko def buñ ko waree def war ko def si benn quartier bu ñu ñëwee projet quartier ñëw ñu wax ko ne lii lañ bëgg def lii lañ bëgg def mu joxe ABM ñu xool ABM est-ce que mën nañ ko partager bu ñu ko partager mu jaar yoon ñu méngoo ci li ak suñu bëgg-bëgg mais dañ koy def kon quartier bi noonu la mën a dundee que population HLM méttiwul méttiwuñu mais xëy na rek ñàkk déggoo des fois te déggoo bi war mën a déggoo parce que ñu ne neen kese la macha allah.